l'expérience fera face. à mbokk yi mi ngi noonu Assane Ndiaye la ñu ciy àndal ak waa Bawol production jëm arène nationale le 3 juillet drapeau Pape Abdou Fall le grand promoteur grand combat bi war a dox ci diggante kéwél bu Bawol war a jàkkaarloo ak le professeur de Lansar Tidiane Faye mbokk yi ci bés boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 Teg Choc dina fa jàkkaarloo ak Caatu Montagne ak yeneen i sept combat espoir yu war a am ci bés boobu waaye nag maa ngi leen di yëgal ni bésu le 3 juillet face à face bu am ci bu Thiès Thiès ak entrée bi ñaata la Assane ni dama koy yombal rek 2000 laa koy def 3000 ak 5000 francs ciy Assane Ndiaye ak waa Bawol production ak ñoo mën bés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 bëgg nañu combat bi ndax ñaari xale yoo xamante ne tolloon nañ ci taay tolloo nañ ci dayo bu ñu bàkkoo mu neex bu ñu bëree mu neex ñoom ñaar ñëpp mbokk yi dañuy def ambiance tey nag Djibson ñëw ne day taxawal combat bi woo fii ci arène nationale moo tax ñu fekk leen bëgg waxtaan ak ñoom ci combat bi nga xamante ni moom lañ jub si ma bàyyi la ñu nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi ci kan laa njëkkee sax si yéen bu mu njëkkee baax nuyu naa la fay nañ la di la bu baax a baax a baax nuyu waa Wassare làmba waa noo demee du nuyu àdduna amateur yëpp di nuyu suñu adversaire ñaabu ndaw ah, suñ manager maam ñaaw xam nga Gibson promoteur bi di nuyu suñu grand Abdoulaye Ndiaye booy jum deux mi ñu àndal ak papa ah. waaw di bëgg amateur lamb yëpp di nuyu waa jam ñaajo waa Déni Biram Ndaw ak waa Caaro yi ñoom ñëpp ñu ngi leen di bëgg bu baax a baax waaw nañ ko adversaire bi ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax ñaabu naa waaw maa lay fay bu baax di nuyu sama wasila maam Coro Ndoore di nuyu waa Géejawaay tam damay fàtte tam xam nga di nuyu waat waa Gambie bu baax sama père Sadio waaw suma lépp tax ma du nuyu itam Pape Modou suma grand gambi bi Ousseynou waa gàlle bi may nekk yëpp dina wax nañ ma xaar maa ngi ñëw wàcc bu baax a baax baax du nuyu waa Gunaas waa Géejawaay waa du nuyu waa àdduna du nuyu ndante yëpp yaa. combat daa mel ni gàmbi nga xam ne waajee. waaw xam nga faa génn. faa ma génn ñu xool rek dem Gambie wala Maroc maa ngi xool daal ñaari daal mais xam naa mën naa ma dem Maroc mën naa ma dem Gambie parce que làmb ji làmb ji ma la quoi làmb bu ma jaral la. waaw du si woo waa Guédiawaye ma mais dama gis euh, ñu la doon proposé yeneen adversaire lan moo waral nga taamu ci armée bu ngéwél. armée bu ngéwél ni walla bu xam maa mu seen toog fii man la man su ma jël combat dama jël combat boo xamante na si génn wala mën si génn parce que moom daanaan la champion la du ma ko bañaan bu nekk woon daanaan du ma ko jël du ma bëree moom day xaar waaw mais nag am na làmb ma koy wax ne ko armée bu ngéwél yow doo Thiès. voilà. est ce que xam nga booy bi wax day bàkku day bëre day xeex. waaw man moom dinaa ñëw def lu ma war a def ñëw scientifique lu ma war a scientifique wax lu ma war a wax wax tuuti jëf lu bari man bàyyi daaru laa si nga war laa su ma dalee am leen lu may xaar wala leen lu may ragal sama àdduna waaw man ma dem defi leneen. fii de boo demee ba moom li nga wax ay xale lañ. yow mhm. nekk si yoon man damaa nekk si yoon. waa Guèye yu nu may. yàkkamtuma ma doon espoir géejawaay doon yaakaaru géejawaay war a nekk si ëllëgu géejawaay kon man amul leen lu may caaxaanee làmb man làmb du ma ko fooye làmb du ma ko caaxaanee su ma toogee benn jour dama entraînement su ma tëddee du ma nelaw pour te dire vrai. daa bokk ci yow loolu la demee. dégg nga sa waay de. waaw dégg naa bu baax a baax. Eh, Maroc lay waaj wala Gàmbi mënoon na toog Sénégal rek. waaw ah, man moom waa Espagne nañ ma xaara ah. waaw noonu la demee Espagne wala Maroc. parce que instant suñu lépp mat na quoi dañoon xaar affaire leer rek mooy loolu ñu dugg dem préparer yi. waaw noonu la demee parce que dem Gambie wala Maroc yow ngeen Espagne laa jóg. Espagne wala Maroc te bientôt incha allah su wala ginnaaw su di ngeen dégg dugg naa di ko wax combat bi lu mu ko jaral benn. jaral na moom fukk waaw noonu la demee dama bëgg mu xam ni. li nga yow ci état de forme doyul la fi bëgg mu xam ni am na combat moom sampion la te xale la. yaa man champion la xale la waa goxam yàlla xam na ni yaa mag ki yàlla xam na ne kii moom mag kii kii bi ñu bëree combat eh, kewel bi. Hmm. boo demee nga tabax kewel Aliou Mané. bi ñu bëree moom ëpp moom maa ngi nekk ci xale bu ndaw moom ëpp moo sut ma bëree daan ma ko suuf mu bëree daan. yaa may suuf suuf yàlla xam na ni maa ko may suuf Aliou Seydoune moo ñaan suuf ma jox mu jox ko. boo demee nga tàppee nga xool laa mujj bu baax man xale bu ndaw laa. waaw loolu yëpp garaawul xale laa mag laa yow man su wala magee man man yow fa laaj kii fa laaj mag yow nga xamante ne ba yàlla di penti asamaan si yaa téye woon si wooy nga naan maa la mag waaw dama taxaw jàppal loolu xam na ne kii moom mag ku ci nekk xale yàlla na ko yàlla may ndam nag ñaa ñaa ndaanaan la de dégg yàlla na mais ñaa ndaanaan la de la champion la waaw moo tax ma nangu ko jël parce que lamb ji lamb jànq la di ko remercier bu baax parce que tey ji gis naa lool ci mbër yi quoi. Mm-hmm. waaw ñoom duñ nangoo jël làmb jànq dañuy jël ay ay kii di daan di daan di dem boo demee ba ci kaw nga am problème. Mm-hmm. waaw kon courage bi ma am ba jël ko xam ne làmb jànq la moo tax ma am courage boobu ba jël ko waaw kon làmb ji di nga gis lamb ji neex ci bépp côté nag. mais est-ce que di nga imposer parce que keroog dama koo laaj mu ne moom du fourrière ah, du Hercule parce que yow ay ndaama ngay jàpp di leen noggatu te moom du ndaama njool la ni yow. di ko wax rek moom ñi mu mus a tamit kenn du ci man am na làmb ju ngand ndurum champion la ay champion la bëreel xam nga man ay champion laa bëreel waaw noonu la demee mais instant yi lu muy lu muy jaay fii la buujoo lépp lu may jaay fii la buujoo yàlla xam na loolu waaw du ci wax du ci bëree duñ contact ah jam ñaa ngaax ñoom jam ñaa ngaax dëkkuñ bëri bilaay walaay gise waay laa dëkk masi masi masi buy taw jam ñaa boo nga seetaan doo wul doon ñëw seetaan si waa Dakar yëpp jam ñaa lañ jëm barki yàlla gise waay laa dëkk hmm. barki borom daaru doomu gunaas laa waaw ñun ñun ay ay commentaire billaahi doomu géej waay laa mais li nga li nga waxoon nee nga woon yow doo Hercule ah doo doo doo Fourrière ay ndaamu la jàpp joon nangot da nga fay tegaat sa loxo ba léegi wala waaye kii yow man kii man ko masoog la bëre. kii di mu bëree moo mën na doole ay irkil yii di ko wër di ko wër ndomba ay kii mu ciy génn ak yooyu. loolu su ma ko defee barki borom daaru bu ma yaakaar ma koy séen ba si kaw doog a suuf. ay champion laa bëre mais doomu géwél bi moo wex ba ku da nga yaakaar ne cuune la yow ndaanaan nga mais làmb ji dañuy yaakaar ne yow cuune nga xam na loolu. man géwél damay damay respecté man si kër géwél laa foowee Adama Diouf ñuy bokkul nekk di fanaan yaayam moom ma yar mère Awa Diang man ci ay kër gi wala laa lekkee ñoom Jibi Ndiaye waaw damay respecté beaucoup sama toomaa nekk géwal man kii màgg nekk géwal sax moom olof Ndiaye la gér bu yàq boo rew géwal yàq woo de maa ko dàq fecc maa ko dàq bëre foofu laa jëm laa jëm ci wàllum tuus sa digganteeg moom da waajaat lu bees parce que gis nañ li nga daaj fii parce que ñaaw ndaw ku xam ku ne xam ne day day feccul bàkk lu neex wàllum tuus da ci ciy waaj lu bees wala fa tegoon nga koy tegaat non dañuy génnaat beneen bu bees parce que man rek damay tëgg ndax doomu géwél laa damay tëgg samay bàkku yëpp maa xay répété jox ko géwél ñu tëgg ko. ni noonu moom xam nga rek dañoo njëkk def armee koy yëngal booy armee koy yëngal ki caakit rabax ki gi jaat ki caakit rabax roi ki jar taki sawa taaj ki gi gën taaj ki gi gën taaj pa caaki jër waaw noonu la demee après dina ko rey bi ñëw quoi loolu tam da dëgg baaxoom lan mooy temps man dama dëggal kii ñaa bu ndaw xam nga gars yi werante booy ñaa la wala du booy ñaa ñu ne la kii du ñaa bu ndaw booy ñaa la ki ca rambax ca ki cagg booy ñaa cagg sa gédd ki jar cagg sa gédd ki jar cagg sa gédd ki jar nga naan jar kii ba ca bag raw jàggit cee cee pa cee cee cee gur pa caa kii pa cee cee cee pa cee cee loolu laa nga def laa mu jaar loolu temps mbër déggoo de wallaay waxoon benn temps sa yi nga tëgg dara baaxu ay nii nii fecc rëboo la fi wax. maa ngi fi jaay. moom rëboo la fecc rëboo lay fecc. damaa dégg ba yàqu doomu géwal la. moom déggul loolu. moom dafa loolu. Djibson nuyu naa la. waaye fay naa la. Euh, ñu gis xale yi mu nekk ñaari affiche yu neex gars yi nag dañuy fekk ay mag ak xale ñu leen boole nga fekk ñaari xale yoo xamante ni nii affiche bi foo ko yóbbu monde làmb ñëpp dañuy kontaan naka nga def ba taxawal affiche bi parce que ñaa bu Ndaw tamit ñoo ngi ko doon wutoo yeneen def ba boole ko Armé bu Ngéwél. waaw ñun waa authentique Abdoulade moo ne ci suñ ginnaaw te làmb Abdoulade du maslaa combat day seen mbër yoo xam ne ay adversaire mu boole leen laat boo bëggee lu looy sax danaa la teggi ma te nun nag dun promoteur yoo xam ne ni dañuy jël ñaar mag ak xele boole dañuy seen bëri yoo xam ne ni dañoo nattangoo ak seen adversaire ñu boole leen que combat bi bi ma koy décroché bari na ñu bari ñoon ko bëggan mais bi ma waxee ak Abdoulaat te maam ñaaw di sama xarit combat bi mënul jafe man parce que Abdoulaat lu ma bëgg daf koy bëgg te maam ñaawit nitu kaddu la bi mu joxee Abdoulaat kaddu gi laa xam ne dinaa jot ci combat bi loolu la quoi ndax nga gisee ñoom ñaar seen ayoo ñu tolloo naka nga leen gisee. jot nga ci combat bu neex. ñoom ñaar ñoom ñaar cinquante cinquante la. kenn ku nekk appelé woo sa moroom dara li ma leen di ñaan daal mooy lamb ji nañ ko mobiliser fexe feesal lamb ci comme seeni morom parce que fi mu ne loolu moo xew sponsor yi du ñaari sponsor moo may jàppale maa ngi woowaat yeneen sponsor yi ku ci demee Sador ak Alburax ñoo may jàppale maa ngi sant baay di sant Aziz di la xamal ne daal combat bi kontaan naa ci trop kontaan naa ci trop di ci sant Abdoulaye Ndiaye bu baax di sant waa authentique yëpp di jël nuyoo bi di ko tollo teg ci loxoy jiey seen mu joxal ma ko waa authentique yëpp di la xamal ne daal kontaan naa incha ñoo la gën a kontaan kàddu yu mujj la la. waa kàddu yu mujj yi waaw damay woo ñu may jàppale rek Youssou Kara borom Espagne mafia mafia Espagne bi waaw Zal itali sama doom ndey Zal Fouch maa ngi koy woo si bu baax mafia bi moo góor a waaw di nuyu Pape Mbengue borom Canada Cheikh Diop américain waaw kooku moom sama mën naa ne sama papa sax waaw sama lépp moo ko yore nu may dugg suba ba ngoon di ko ko ne ko làmb ji bii bële dañoo bëgg nga jàpp si bu baax a baax Bas. waaw waa Gambie du ñu bu baax waa waaw du ñu war waa Gambie moo moo sa fas bu nekk Gambie tam di ko waxaat tam mu waaj ay ñëw mobiliser du ñuy waat waa Diofior waa Diofior waa Diofior maa leen nuyu bu baax a baax a baax waa Sicap di leen woo si combat bu baax di leen wax ne doomu dëkk bi waaw sama yaay mama Seynabou Ibou Ndiaye Diofior maa ngi koy nuyu bu baax sama grand obali di ko wax ne ko xam nga gis naa def si ma lépp di nuyu Maas Malick di nuyu mama Adam di nuyu Fatou waa Grand Mbao waa Thiaroye waaw waa parcelle waa Pikine maa ngi leen di woo mafia Pacaxoo bi maa ngi leen woo bu baax a baax a baax waa waa ñaari tëli maa ngi leen di woo bu baax a baax Ahmed Sarr mafia bi waaw su ma limee damay juum maa woo waa Yëmbal sama boy ne foofu sama sigoor yee di woo waa adduna. woo waa Jamñaajo. foofu maa ko moom Jamñaajo. waaw noonu la demee di nuyu nag waa Jamñaajo bu baax waa Déni Biram Ndaw waa Thiaroye xam nga di woo Aro Mouhamed Mbaye sama grand sama xarit. xam nga di woo monsieur le maire Moulaye Gueye international Pape Gueye xam nga Vieux Ndiaye doomu monsieur le maire xam nga di woo sama yaay bu baax a baax euh, di woo monsieur maire Ngagne Diop maa lay bu baax a baax a baax nga ñëw jàppal ma grand combat la ñuy bëree te bi dañoo ñor suñu carrière dañoo jàppale ñu bu baax Pape Sow borom kër Ndiaye loo xam nga maire maire Sangalkam bi maa ngi lay bëgg bu baax a baax di la woo nga ñëw jàppale sama làmb ji grand combat laay bëree nga ñëw jàpp si bu baax a baax a baax Omar Gueye Junior sam papa Ndongo Saari xam nga ñoom ñëpp maa ngi woo ñoo jàppale ma ci làmb ji bu baax Aziz Mbeng saw xam nga ñoom Kambi ñi nga xam ne dañu may jàppale samay làmb yëpp maa ngi woo bu baax a baax ñu ñëw jàpp ji waaw ma jàpp sa waay tegal ko lu métti supporter na di leen woo ci zone bu lay waaw ni ñu def stade bi ak zone bi bii bii ñëw nañ ko double wala ñu triple ko incha allah rabbi arène nationale naa ko yat lu mu attanul yee noonu la demee mooy loolu Guédiawaye du zone bleue. wax na la Guédiawaye du zone bleue. seen seen seen seen saaf saaf yi. L'expérience fera face à la jeunesse. mbokk yi mi ngi noonu Assane Ndiaye lañu fiy àndal ak waa Bawol production jëm arène national le 3 juillet drapeau Pape Abdou Fall le grand promoteur grand combat bi war a dox ci diggante kéwél bu Bawol wara a jàkkaarloo ak le professeur de Lansar Tidiane Faye mbokk yi ci bés boobu Cheikh Super Jamono dina fa jàkkaarloo ak Boy Sey numéro 2 teg Choc dina fa jàkkaarloo ak Caatu Montagne ak yeneen i sept combat espoir yu war a am ci bës boobu waaye nag maa ngi leen di yëgal ni bésu le 3 juillet face bu mag dina am ci diggante ambulance bu Thiès ak Youssou bu Balla Gaye entrée bi ñaata la Assane ni dama koy yombal rek 2000 laa koy def 3000 ak 5000 francs ciy Assane Ndiaye ak waa Bawol production ak ñoo mën bés